ban appréciation nga ci am match Sénégal CAN bi instant bi métti na nit ñi xaw nañ commence en douceur parce que en général Sénégal bruit bi bu bëree rek du ñu sore mais soo gisee gaynde buy chasser toujours day nekk di yoot il est à yi il est derrière les buissons muy yoot ndànk-ndànk ba yegg ba am lu mu bëgg donc moi je pense que aujourd'hui on est on est peut-être sur un très bon pied nan toog seetaan rek waaw et di continuer di supporter tamit am naa yaakaar bu rëy rëy rëy rëy waaw yi lan ban ban man pronostic bu may joxe ah ca kaw ca kanam rek nañ dem ba final. nañ door Malawi. mais ñun bien sûr yow ci yow da ngay douter yow moi je n'en doute pas nul ñun 1-0 nañ leen di doon ñun daal nañ leen ñamal par ndànk-ndànk rek waaw. Ah, ba jël coupe bi waaw. ah Lions de moom moom li ma si mën a wax bëriwul l'essentiel euh, euh, yokk seen jom déglu xam ne sénégalais ñoo ne seen ginnaaw ça fait des ñu ngi participer e ay CAN mosuñu jël coupe donc man pour man cette année bi année bi nii nii moo nekk suñu dernier CAN e bu ñu ko jëlul moom deful baax. amatuñu confiance lan ngay wax sénégalais est ko war a continuer gëm. waaw match man dama kaa seexlu nag seexlu ma ko de maa woon ci tournage yi métti. Sénégal lu mu xaw ma sax lu xew ba Serigne Touba. xaw ma si dara maa maa ngi tournage yu billaahi mooy loolu mais yàlla baax na yàlla na yàlla defal jàmm rek. mais gëm nga ni coupe bi waaw mën na nekk parce que am nañu xale yu am jom waaw yoo xamante ne ñu ngi seen club yi def lu garaaw garaaw donc ñi def seen club bu ñu ko defee fii man gëm naa ne mën a jël coupe bi incha allah bu soobee yàlla. pronostic euh, Sénégal ne door Malawi ah, ak ma leen xamee war nañu mën a lu bare bare bare incha allah waaw 3 baax na mais yaa wax de waaw 3 baax na. J'ai réagi le premier match, j'ai réagi le dernier match, 1-0 après 0-0 avec la Guinée. Bon, j'encourage les Lions, sincèrement. Je suis fière d'eux et je sais qu'ils peuvent donner plus que ça. va venir et on est tous derrière eux et on les soutient à fond. ba suñu looy ñu leen encouragé parce que ñoom lañ ko am tu vois ñoom la ñuy sigil seen ndam la on leur dit bah bravo courage à eux. Lions est-ce que da nga leen est-ce que da ngay continuer gëm nan nga gisee sincèrement sincèrement je suis trè trè positif année bii la sama xel gën a dal sax en fait sa c'est la chance du champion en fait si compétition dafa am lu ñuy wax la chance du champion en fait il faut que ñuy gën a dem. suñu joueurs yi di gën a ñëw di gën a frais mais ama tey jii am nañ ay blessé Kalidou Koulibaly Gana Gueye xam nga Edouard di ñooñu bu ñëwee dinañ yokk benn coup de fraîcheur di nga yeneen équipe yi seen titulaires yi ñu ngi joué donc ñooñu bu ñuy ñëwee dina fekk ñi ñi ñeneen ñi seen titulaires yi sonn et dinañ am benn ascendant tuuti seen kaw et dañuy gagné kan bi ren non dañuy jël ren ren moom bu ñu jël man baay naa de man la sa chance bi booy yi di bind sama yooyu noonu man man bindu ma ko mais dama ko la sa eh. Sadio Mané Sadio Mané baax na Aliou Cissé bu leen baal soo leen baalee dañ koy defaat ñafal ñafal. léegi Malawi lan nga gis match boobu. ah suñu dernier match poule. mais en fait vraiment c' est un boo xam ne dañ ko war a gañe en fait parce que booy dem si beneen phase il faut que nga am benn.

kan moo blessé ah ma xool est dernier match bi moom seetaan na ma ko wax dëgg yàlla. non non da nga jàppoon ne ñoo mën Guinée moo tax. non eh bàyyi li ngay wax nag suñu buddu kii non ku ma waxoon suñu dina ma yeb du ma ko gëm. ah xamul dara xamul dara Sadio Mané ring du ma ko ba baax na Sadio Mané yaa ngi may yeblu def leen différence ak son nañ de.